le dimanche kenn disu ko ba dimanche ngoon laaj lan ma woo wax ma ko ay magi doom ndeyam yoo xam seen ñeneen seen ndeyee bokk lépp ñoo ma woo depuis Mboro jox ma information bi 15 minutes après Ibrahima mi woo ma ndax ñoom ñaar ñoo jàkkal buntu kër sama xarit la benn bakkan dama ndax yëngali xaw ci Cheikh Mbaye ma quoi ah, frère mi woonan ma mais ñu ne ma comme yaa dëkk Thiès ñun ñu ngi Mboro lépp lu ci war doxal ñu ko ci laa demee police def déclaration bi centrale

ñi ko mujjee gis ñëpp le 23 lañ ko mujjee gis muy le gérant du parking nee na ko à demi à 23h client bi mujjee yëpp le 23 mi ngi koy buntu dépôt jëme ko sampaté né gañu non la jaar ñibi ñëw jox yaayam sëriñ ci même vendredi bi kon luma xew ci mom ci vendredi bi ci guddi gi la. muy safane bi muy tey firndeel na ko léegi nag yoon mi ngi ci yef yi enquête banque ngi ci yëf yi ñun xamuñu la xew waaye daal xam naa Cheikh mi disparaître woon depuis le vendredi 23 avril jusqu'à nos jours. tey moom lañ récupéré moom lañ fekk fii ci caniveau mu nekk mu nekk lu ñaw mu nekk lu ñaw ndax doomu aadama bu ñu génnee say loxo ñu takk ko takkul boppam Cheikh ku ko xam-xam ne Baye Fall la ku dal la ku am la ku nangoo liggéey la nangoo jaamu yàlla jeudi boobu la woo magam Badara Mbaye jox ko ñaari junni na ko mënu maa dem ci ndog yi jeudi bi la ko jox na maa dem ci ndog yi te mercredi la la koor gi tàmbali waaye maa joxe sama barke si ñaari junni yi ci ndog yi Badara Mbaye yóbbu ko la samedi samedi bi Cheikh disparaître kon kooku du nit koy yi dem di di sànq boppam ci àll bi xamuñu ko soom liggéey la xam jaamu yàlla dugg néegam dal jàpp ñaamaram xam nga yàlla mi mu am sutura jaamam moo sutura lii tey mu fatt dëkk yi dem woy ONAS pour ñu déboucher leen ñu dugg di ko déboucher yam ci yam ci lu mel nii jëf la joo xam nag kuy xalaat ëllëg yamal xel di bàyyi lépp loxo yàlla ñun daal sëñ bi li ma ci mën a arrêté mooy li ma mbokk yi santoon en tant que ku denc sëram ndax sama soxna ak yaayam seen yaay bokk benn ndey yaayam mag la xamatul xew mu ngi fii kër sëram ñoom ñoom woo dama ko yaanu fa nekkal doxal ñu si enquête bi Cheikh pièce bu mu am mi ngi si man ndax maa ko récupéré oto bi mi yor doon dañ ko liggéey maa ko jox kii moomoon oto muy ma gaamu jóg maa ko woon fekk ma police jox si oto ah bon police daal actuellement jël nañ ñëpp leen entendre ñu ngi si audition yi kii mu bokkaloon man mi on m'a entendu ak ben jarbaatam ñu ko moy moy ki mbokkul keur gi jarbaatam ñu ngi leen di auditionné ñoom ñëpp l'enquête est en cours kon li war la moy jël lepp baye loxol justice mu xol la ca war mu def ko mais li ma leer ba leer moy am na xam yalla bu gëmul nelaw lii du feeñ yàlla gëmul mi ngi judd en 1956 il a 65 ans mi ngi ak 7 gos ben soxna la amoon amoon yenen soxna mais danoo dem mais kenn la desoon

ñëw daal dugg ci biir booba laa ko koy gis gisuma ko vendredi gisuma ko vendredi ci guddi samedi dimanche gisuma ko ci laa woo Mbisaan ni man ñu ne Cheikh Mbaye gisuñu ko parce que presque deux jours dañu ni Cheikh Mbaye oto bi mu gaare woon ci parking bi moo ngi fi Mbisaan ni ma ah, ñoom ñoo ñëw comme man dama damay liggéey ma ma xëy liggéey boobaa ak léegi nag képp ku ma xam nit koo xamante ne Cheikh Mbaye xam na ko woo naa la téléphone laaj la nga ne ma Cheikh de gisuñu ko waaw muy loo xamante ne lu ñaaw la. ak ku ko mën def nak yalla na ko yàlla feeñal ci barke Seydina Mouhamed. comme comme justice mo ngi mo ngi def liggéeyam man man du ci prononcé wu damay baye re justice def liggéeyam am amna ñu mu nekkaloon ci kër gi woo nañ leen comme niko ko waxe jarbatam bi mu nekkon ci kër gi woo nañ ko jabaram ñong koy entendre ak taawam bu góor waaw mais man daal li ma mën xam moy chaque jour que je fais man fi kër gi bala maa teud presque 1 heure du matin dina jot. mais nak li na ndax ndax kanaal gi ni mel Cheikh mbay man man ta takk boppam dugal boppam ci biir ba pare tëjaat canal bi. lool mom waaw lool mom c'est impossible soit nit moko def te aussi bu dee ben nit la dina ma jaxal waaw ndax Cheikh mbay nit am amoon na poids bo xamanteni ben nit rek attanu ko waaw lool daal xam.